asalaamaaleykum mbokk yi donc seen euh, mbokk docteur Keba Tamba pharmacien nutrithérapeute lan mooy nutrithérapeute mooy tey euh, jàngat boo xam ne moom mooy gunge nit ñi si seen wàllum lekk parce que xam nañ tey àdduna si suñu lekk mooy problème numéro un mooy indi jàngoro yoo xam ne yi ngeen di gis nii lépp bépp buy feebar boo nit ki mënti def nga xam ni fu mu cosaanoo fu mu sosoo si lekkom bi la li ci gën a bëri foofu la sot fa la fa la jógee moo tax suñu waxtaan tey balaa ñu koy door sax dañ leen di gërëm parce que gis nañu vidéo bu ñu defoon si jabet bi intérêt bu mu amoon si nit ñi nit ñi nuñ si farloon pour dem déglu ba xam tey lu bëri loo xam ne xëy na xamuñu ko si feebar bi xëy na xalaatuñu ko si feebar bi tey tax na ñu bëri mën si mën si am information moo tax ñu xalaat ni ñu ko bàyyi nii dem si beneen sujet dañuy desaat si diabète mais tey wàllum lekk lekk mu diabétique bi la ñuy wax. lu tax loolu parce que lu ñu seetlu tey surtout si diabétique yi ñuy ñëw seet si souvent mooy lekk bu ñu leen di bu leen di diggal boo leen laajee lu ñu ndëkkee ñu ne la mbuuru la ñuy ndëkkee boo leen laajee lu ñu àndee ñu ne ma ceeb bi la ñuy la ñuy lekk ak boo ak yan légume mais légume ñuy toggaale ak añ bi. boo laajee des fois lu ñu reer boo seetee rek da fay fekk des fois lu ñuy wax de terre pour ñun am na façon ñam yoo xam ne buñ ko jisee si assiette ki am jabet déjà ñun daf ñu poser problème ban problème la ñuy parce que li am solo mooy nit ki mënul nekk si feebar boo xam ne suukar bi dafa bëri si yaram ba pare muy continuer di lekk ñam yoo xam ne day yokkaat suukar soosu si yaramam loolu bu amee rek am na problème problème bi mooy lan souvent yu ñu leen di lu leen di digal pour ñu lekk ko bu ci njëkk am problème mooy mooy mburu bi mburu suukar kese la. suukar kese la te des fois ñu ne leen pain complet pain complet bi su ma waroon tekki tuuti si si si si si si si français mooy lu tubaab di wax index glycémique mooy lan ga euh, euh, boo lekkee ñam bi si ñaata waxtu la ñam boobu di mun a yokk suukar si bu nekk suukar bi nekk sa yaram boo jëlee mbuuru bu complet bi ngeen di wax sax moo ëpp moo gën a gaaw sax mbuuru boo xam ne moom mooy mooy farine blanche bi wala baguette blanche bi ngeen di wax nii ba tax na muy pain complet muy pain diabétique quel que soit lu ñu leen wax xam leen ni suukar si si farine bi la nekk. c'est pas parce que ñu suukar si bu ñuy defar mburu bi que mburu boobu amul suukar non farine bi si boppam moo am suukar donc façon mburu boobu munti jël xamal ni am na suukar donc loolu pour man li am solo mooy yow mi diabétique jàppal ni mburu mënoo ko lekk bu dee bëgg nga sa wér gu yaram tane bu dee bëgg nga yow dem ba fa sa jabet doon loo xam ne li nga mën a maîtriser la ñaareel bi mooy lan li ngeen di lekk si ceeb ceeb bi jàppal ni suukar rek la donc nit bu sa diabète dellu su nga dellu saat jox sa yaram kattan bu mu amoon il faut nga xool nooy def ak ak ceeb boobu tam ñetteel bi mooy pomme de terre xam naa boo ko tegee sa lamiñ di nga yaakaar ni amul suukar mais suukar kese la ba tax na ñetti ñam yooyu man fu ma ko gis si diabétique sama xool damay tiit parce que dama ne ah kan moo la tegtal lii kan moo la jox recommandation yi c'est vrai que am na luy ay jox mais pour tey fiches yooyu il faut les réviser xoolaat ko parce que am na ñam yu ci fekk yoo xam ne du ñam yoo xam ne nit war na ko lekk su dee fekk nga fekk na nga am diabète parce que yaramu diabétique dafa doon yaram boo xam ne dafa lot feebar bi sonal na ko salte yi bëri na si yaram bi donc bu kooku buy lekk dafa war a dem uti ñam yoo xam ne moom mooy ñëw dundalaat cëram te ñam yooyu du doon ñam yoo xam ne dañ koy transformé wala dañ koy togg bu si njëkk mooy fruit banaan xam dëgg naa souvent ñi leen ne dañ leen di tere banaan mais lekk banaan moo ëpp téeméeri yoon njëriñ pour sa yaram que bi ngay lekk. parce que banaan ferñeent ci si nekk yooyu ngay soxla yow pour mun a jox say say cër ñu lekk te bu ñu mënee lekk ñoom ba bu ñu lekkee ba pare si la ñu mun a raxas seen bopp. mun a génne saleté yi si nekk donc fruit tey diabétique mi yow mi diabétique da nga war a lekk fruit parce que seen index glycémique so dépassé wu sa 60 donc ñam boo xam ne tey moom moo dépassé lu ñuy wax 70 si index glycémique mooy mburu mooy ceeb bi mooy pomme de terre bi donc ñam yooyu war ñu ko fekk seen seen alimentation donc ba tax na pour man ku nekk war nga xoolaat même boo boo boo boo yow sa bopp toogal sa kër rek nga décider bu dee nga toog décider benn semaine nga ne du lekk ceeb. décider sa kër nga ne du ma bay naa mburu nga xool yow sa yaram ak sa suukar fan lay toll boo ko defee rek ji sa bopp boo ko defee sax ji sa bopp donc tey lii ma yitte woon mooy wax la ni lekk diabétique da ngeen ko war a seetaat ku bëgg sa jabet dem ba bu ñun ñun lu ñuy tudd ba jabet bu mën a wér te dama koy confirmer ñun ay jabet yoo xam ne wëral nañ ko am na du benn du ñaar dama koy wax du fii Sénégal rek si àdduna si yëpp tey ku ko gëmul nag yow yaa yaay toog sa système mais ñun ñu wax di ko jëf di ko jis ak ay malade buy peut-être benn vidéo dina ñëw di si dëgg sa ay malade yoo xam ne ñoom ñooy waxal seen bopp ngeen gën gël dëkk ko boo buggee tey yow sa jabet dem ba mën a tey doon bu dee da ngay jël dose yu bëree nga wàññi sa dose yi ba dem ba foo xam ne xëy na sa yaram moom dina amaat kattan pour gérer loolu il faut nga xoolaat li ngay lekk parce que lekk boobu moo la indil feebar bi munoo continuer di lekkee noonu fu may tëjee mooy si xale yi xale yi ñoom jabet bu ñu wax jabet de type 1 souvent lañ leen di wax mais pour man tey ak suñu suñu façon liggéey ak lu ñuy wax nutrithérapie âge bi mënatul doon loo xam ne si loolu rek la ñu war a wéeru pour nekk xale bi diabète bu mu am jabet de type 1 la. parce que boo leen xoolee tey xale yi seen lekk seen lekk tey lekk bu bon la xale yi dañu dañu commencé di pata xale yi dañuy am yaram te yaram boobu nag malheureusement day dem ba di nga gis xale boo xam ne 9 ans la am am 50 kilos mais corpulence 50 kilos boobu du corpulence xale corpulence mag donc loolu yëpp kilo yooyu yu bëri yooyu graisse bi nekk si yaramam la te graisse bi fenn lay dem commencé di nekk si fu ñu si res bi bu demee si res bi res ba nga xam ne moom mooy presque usine yaram bi mais du mënati def liggéeyam su res bi mënatul def liggéeyam pancréas bi day jël pancréas bi moom mooy moom mooy defar insuline bu pancréas bi tam jëlee graisse bi du mënati defar insuline bu doy donc xale boobu moom mooy dem 9 ans 10 ans 15 ans mu defal la diabète ñu ne diabète de type 1 jox ko insuline fekke âge euh, bi rek la ñu xool nekk xale la rek donc bu dee xale la rek jabet bu muy def diabète de type 1 la donc li ma ciy ñaan mooy nit ñi tant que demuñu ba gis li anticorps lu ñuy wax anticorps si biir yaram bi buy wone ni xale bi jabet bi si pancréas bi la euh, pancréas bi moo am problème man mun naa leen ne ni gëstu leen pousse leen encore di ngeen gis ni xëy na sax pancréas bi amul benn problème boo leen changé alimentation di ngeen gis changement yu bëri yi ci mun a jógee te am nañ ci ay cas yu yoo xam ne pendant ay at jël nañ insuline parce que ay insulino de dépendant lañ leen déclaré woon mais bu ñu changé seen mode de vie changé seen alimentation dem nañu ba xale yooyu presque jëlatuñu insuline. li ma la mënti wax mooy lépp lu ma la wax suba ba ngoon xamal ni expérimenter vérifier prouver avec des cas. probant yoo xam ne am na donc lu bees la ñi ñi comprendre ak ñu ko mais bu ñu demee ba ci kanam di ngeen gën a gis mais li ma ci yokk daal mooy jàppal ni jabet bi si sa lekk la munoo continuer di lekk li nga daan lekk balaa ngay feebar continuer di ko lekk tey surtout mburu bi man mënuma comprendre diabétique boo xam ne ndekki li mburu ngay ndekki mënuma comprendre diabétique boo xam ne de temps en temps ngay lekk pomme de terre mënuma comprendre diabétique boo xam ne ceeb baa ngi sa alimentation bu dee bëng yegg foo xam ne foofu la nit war a mën a yegg si delloowaat yaramam kattan bu mu amoon pour mun a waat contrôler suukar si il faut nga décider changer sa alimentation donc jàppal ni clé bi wala solution bi si sa alimentation bi la boo changer sa alimentation ñu wan la yoon bi li ci bëre dina mën a mën a sotti daal si loolu laa bëggoon tey dellu soit di leen gërëm di leen sant bu dee luñ waxtaan bi am na leen solo ngeen abonné wu si chaîne parce que bii mooy première chaîne en nutrithérapie en santé am bien-être donc abonnement bi lii li njëriñ bu ñu ci am mooy bés bu ñu posté benn vidéo yow da nga koy gis da ngay jot message bu lay wax ni vidéo bi posté nañ ko nga dem xool exactement liñ ci waxtaan ak yow parce que mënuñu dem si kër ku nekk di waxtaan nii lañ ko mën a def def ay vidéo ay thèmes yoo xam ne mën nañ ko développer pour yow nga mu permettre la sa xel baax na nga déglu bu dee lu am solo la di nga ko xam bu dee lu am maanaa la di nga ko xam bu dee lu am lu lu lu lu lu lu am cohérence la di nga ko xam comme ça mu permettre la nga mën a jëlaat sa sa santé teekoo ñaari loxo lu ñuy wax di ko répéter toujours wér-gu-yaram nit ku nekk yaa ko waral sàmmal sa bopp du sa docteur du man mi wax ak yow du keneen yow yaa ko war a samal sa bopp su dee xam nga exactement ni nga ko war a defee te ñun tey suñu liggéey ak société bu ñu bu ñu bu ñu mettre en place cest à société de coaching bi c'est pour jox leen information yi yi leen di permettre yéen boo toogee yow ak dal ak sa xel mu dal nga xalaat xool di nga xam ndax li ñuy wax nekk na wala nekkul nga xool ko sa bopp sans compter ñun maintenant nit ñoo xam ne bés bu nekk ñu ngi leen di gunge bés bu nekk ñu ngi jëflanteeg ñoom pour won leen exactement yoon bu ñu war a jaar te yoon boobu day permettre ñoom ñu yegg foo xam ne mosuñu koon sa xalaat moo taxoon tey ñu décidé woon comme niñ ko waxtaanee keroog si si si si si diabète bi tey ñu dellu si si sujet bi boo xam ne moom mooy lekkum diabétique te foog naa lu am solo la maa ngi leen di gërëm di leen sant ba beneen yoon incha allah